أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقن لساني واحللا منه العقد wajacalahu shaakiran wa zaakiran abad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu màgg boobu waaye ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu mooy jàmmi suñu boroom ak yërmandeem ak barkeem yal na wàcc ci seen kaw yéen jullit ñépp ñu woyal bind yi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ak yéen mu aju ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju qadaa'il xaaj te ñu woyaloon ci ñaari bind ci ay bis yi weesu tey ñu fas yéene woyal ak yéen rek ci bind yi nga xam ne moo aju ci téere bi waaye ñu jàngatandoo ko ak yéen rek ñi ngi taxawoon ci suñu bindu keroog fi sëriñ bi di waxe ne lam yatruku mosuñoo bàyyi ñoom saxaaba yi li zorin ngirum tiit aw imlaaxin walla ak ñàkk amran mbir minal mudabbiril xalaaxi moo xam ne tukkee na ca yàlla mi nga xam ne mooy luñ mbat mbir yi waaye yàlla mi nga xam ne moo sàkk doomu aadama yépp foofu la ñu taxawoon ci sunu bind bi weesu waaye sëriñ bi dañu di wax ci saxaaba yi ba tey muy wax ne bal li fi ne sabatu saxoon nañ ñoom saxaaba yi fil amri ca ndigleey suñ boroom ya bil aswaaxi ànd ako cofeel lam yulhihim mosuleena yitteel anhu walif ndigali suñu borom yooyee xinal aswaaqi koomu marché ya ñeena saxaaba yooyu ridwanullahi alayhim ñi ngi doonoon jëmm yoo xam ne ci li ñu saxoon rek mooy li leen suñu borom bi subhanahu wa taala digal waaye li ñu saxoon mooy li nga xam ne moom la leen yàlla digal waaye dañ ko daan def ànd ci akuk cofeel dañ ko doon def ànd ci akuk bëgg waaye dañ ko doon def ànd ci akuk sellal waaye li nga xam ne mooy li ñuy amee ca marché ya muy alal wala yi demee noonu loolu yitteelu doon saxaaba yi dëgg-dëgg waaye la leen yitteeloon mooy jaamu yàlla goo xam ne dinañ ko def ngir jëfe ndigalu seen borom waaye moytu li nga xam ne mooy lépp lu leen suñ borom tere loolu rek moo leen yitteeloon wa kashafu wuññi woon na ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim du junnatal afaaxi lëndëm lëndëmi gox ya bil ilmi ci xam-xam wal amali ak jëfe xam-xam wal wifaaxi akuk dëppoo ak sunna kon ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim ci loolu rekk lañ nekkoon mooy daan fàggu di sàkku li nga xam ne mooy xam-xam waaye buñ ko sàkkuwaan ba pare doon ko jëfe waaye buñ ko doon jëfe di ko dëppale ak sunna sinante bi alayhi salaatu wasalaam kon ci loolu ñoom ci lañ leeraloon seen jamono ba mu leer nañ ndax xam-xam day leeral li nga xam ne mooy nit ki te nit ki su leeree rek jamonoom dana leer te buy jëf di ko teg ci xam-xam la muy jëf lépp mën naa dëppoo ak loo xam ne lu suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm la waaye nag ànd ak liñ daan def loolu lépp taxut ñu ko doon ndamoo wala ñu ko doon puukaréwo waaye dañ doon sàkku xam-xam ngir xam fan la ñuy teg seen tànk dañ doon jëfe xam-xam ngir jëfe li nga xam ne mooy ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala waaye dañ ko doon def ngir dëppoo ak sunna waaye dañ ko doon boole ak ak sellal ngir ne nit ki mënta jëf te amul xam-xam ndax bu boobaa jëf ja du baax waaye nit ki bu amee xam-xam ba pare te jëfut tamit xam-xam ba daanaka du njariñam du bari kon ñoom yooyu yëpp lañ boole woon dañoo amoon xam-xam ba pare daan ko jëfe waaye daan ko dëppale ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ baa ngi wax ci feneen naan al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlubaani xam-xam de ak jëfe xam-xam ñaari wurus yu gànjaru lan yoo xam ne wépp yiw wu nekk ci àdduna wala wépp yiw wu nekk ëllëg yawmal xiyaam mën na ko ñoddil nit ki mooy xam-xam ak jëfe xam-xam kon nit ki su amee xam-xam di jëfe xam-xam teg ko ci ak sellal mën naa jàpp ni lépp loo xam ne moom lay jëf rek mën naa rafet njort ci ne suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy mi ngi koy nungu mu ne akrim teralal bihim ci ñoom saxaaba yooyee min saadatin ci ay sang xuzaaxin ñu di way ñëw ñoo xam ne xaalu làq nan alxalaawata neexidoo minal mazaaxi ci ak mos alayhim yàlla na nekk ci ñoom ridan ngërëm ulaaxi bab dana daje bihi ci ñoom bihi ci moom manixtawaa ka nga xam ne làq na siyaatal itlaaxi sanguk boy ga muhammadan moo di muhammad salla yàlla na dolli xiwal alayhi ca moom albaaqi yàlla mi nga xam ne mooy aji des wa alihi ak ñoñom wa sahbihi ak saxaabaam al atbaaxi ña di way déelante ak asamaan kon nee na na nga teral saxaaba yooyee nga xam ne ñooy way ñaw saxaaba yooyu ña di ña nga xam ne ñoo di ay sang ña nga xam ne mosoon nañ làkkoon na neexiitu mos jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala ci nan lañ ko làqe sax ci jaamu suñu borom ba yëg ne maanaam topp suñu borom ni mu neexe kon ñoom ñooñu ñëpp kon muy saxaaba yooyee nee na na nga leen teral waaye na nga xam ne ñoom di ay sang lañ na nga xam ne nit ñu baax lañ ñoo xam ne tedd nga wa foo toll war nga leen di teral waaye foo toll war nga leen di wormaal waaye war nga leen di ñaanal li nga xam ne mooy yërmande waaye war nga leen di ñaanal li nga xam ne mooy ngërëm loo xam ne mooy tukkee ci suñu borom bi subhanahu wa taala kon looloo tax mu ne yàlla na ngërëm yàlla na daje ak ngërëm li nga xam ne moo tukkee ci ki nga xam ne moo mooy sangu mépp bépp mbindeef muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla na ngërëm loo xam ne day tukkee ci suñu borom mi nga xam ne mooy aji des yàlla na ngërëmam tukkee ci moom wàcc ci kaw saxaaba yooyee waaye wàcc ci ñi nga xam ne ñooy waa kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak xeetam yi ak ñi nga xam ne gëm nañ ko ñëpp yàlla na ngërëm lu tukkee ci suñu borom bi subhanahu wa taala wàcc ci ñoom sëriñ bi ne haza yëgal ne lii wa inni naka man al yawma tey zu ijabatin boroomu tontu la wala boroomu wuyu la baadal muridina ñenn ci taalibe yi zawil inabati ña nga xam ne ñoo di boroomu tuub ñoo xam ne xattala bu sàkk woon nan mazman aw way xawaawoo la na làq te adduban ay teggiin liyata addabu ngir ñu tegginu wazaakate loole wajabaa war na nee na tey jii de yëgal ne man sëriñ bi radiallahu anhu maa ngi wëlbatiku jëm ci li nga xam ne mooy tontu wala jox ñi nga xam ne ñooy taalibey murid yi ñi nga xam ne ñoo tuub seen tuub yu sell yooyee maa ngi wëlbatiku ngir jox leen li nga xam ne mooy seen càkkuteef lan nan sàkku woon dañoo sàkku woon ci man ngir ma wayal leen aw way ma defal leen ay bëyit yoo xam ne la ma cay waxtaane lépp ci ay teggiin la jëm te loolee la ko waral mooy ngir ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ngir ñu xam nan la ñuy jëflante ci seen biir waaye ngir ñu xam teggiin yi nga xam ne moo dox ci seen diggante ak teggiin yi dox ci seen diggante ak seen borom te loolee nag lu war bépp taalibe la waaye lu war bépp jullit la lu war bépp jullit la kon nit ki war nay sàkku ay teggiin waaye bu ko bu sàkkoo ay teggin bu pare war naa fexe di ko di ko jëflante ci digganteem ak ak nit ñi kon murid yi ta muy taalibe yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo sàkk woon ci sëriñ bi way woowu ngir mu defal leen ko ngir lan ngir ñu mën a jëfandikoo jëf jëpp jëf joo xam ne moom ni jëfandikoo ñu teg ko ci ay teggin waaye ñu teg ko ci li nga xam ne moo di ab ab yar is ngir kullu man képp koo xam ne raama sàkku na ittibaa ak topp suñu borom bi subhanahu wa taala wala topp sunna bi xëyrihi ci lu dul ay teggin fa innahu naka moom yoxramu deef na ko xañ fawzan ak tuuf wantifa ak jariñ ne képp koo xam ne sàkku nga topp suñu borom bi subhanahu wa taala wala nga sàkkoo jëfandikoo ndigal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne yaa ngi def loolu maanaam yaa ngi sàkkoo jëfandikoo topp suñu borom wala ngay sàkkoo topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam di jëfandikoo sunnaam te àndu taki teggin nee na kookee dina xam ne la muy jëf day mel ni ab pënd bu nu wesaare rek la waaye du ca am benn benn ngañaay boo xam ne da ko cay am maanaam du ca am tuyaaba du ca am dara waaye du ca du ca mën a jariñ kon foofu li ñu fiy déggee mooy nit ki jëf joo xam ne moom lay jëf rek bu koy jëf na ko ay teggin lal waaye na ko teg ci ay teggin bu baax a baax ngir mu mën caa amuk jariñu waaye ngir mu mën caa jariñu ndax lépp loo xam ne nit kaa ngi koy jëf te àndute ci teggin du ca mën a jariñu te bu ca jariñu wut du ca mën a jariñu moo tax sëriñ mbay jaxate radiallahu anhu di wax ne mbooleem lu dee fi jug di di wuti yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi at di wutub sëriñ bu la ko jox maanaam lépp lu nit di jug di wuti rek nee na ab yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi at wutub di wutub sëriñ bu la ko jox kon loolu day tegtale yar solo soo xam ne am na ko kon loolu la loolu la loolu nga xam ne mooy ab yar kon loolu lay tegtale mooy solo soo xam ne am na ko tey sàmm goo xam ne war nañ ko ko sàmm moo tax mu ne ku yaru rek a mat a am ku yaru rekk a mat a xam ku yaruwul matula am matula xam turam wa sax ab yar ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa sa boroom day tax nga gën fa say moroom day tax nga gën fa sa boroom ku la yarul rekk a la nax kon loolu waxi dëgg la ne na ab yar mooy tax nit ki gën ca boroomam ab yar mooy tax nit ki jiitu ay moroomam waaye ab yar mooy tax nit ki xam fan lay teg tànkam kon loolu lu lu wér a wér la ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom day tax nga gën fa sa boroom ku la yarul rekk a la nax kon sëriñ bi sëriñ bay jaxate radiallahu anhu nee na kon ku la yarul rekk a la nax kon nañ fexey ba lépp lu ñuy def ñu jiital ci ab yar bu baax a baax a baax a baax moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne wahuwa te moom ay teggin moomu fit daari ni ci ñaari kër yépp muy fii ci àdduna ak ëllëg yawmal xiyaam xayru kan ji mooy ngën gi yiw mooy ngën gi ndàmbaay maanaam mooy ngën gi koom wa xayru mataza te mooy ngën gi la nga xam ne nit ki dana ci tedd dana ci jëlee tedd nga bihi ci moom ab yar soo sin borom tedd nga wa xayrumaate mooy la nga mooy gën gi la nga xam ne intasa dana terloo bi ci moom zoagine borom tedd nga kon sëriñ bi radiyallahu anhu waxaan na ba tey ne ab yar mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moo gën ci li nit ki di sàkku moo di ab yar te mooy li nga xam ne moo gën a mën a may nit ki tedd nga moo mooy li nga xam ne nit ki saa bu ko amee am am tedd nga waaye du ko yemale fii doomu tedd nga ji waaye ëllëg yowmal xiyaam sax daf koy topp li annahu ndaxte moom tedd nga moomu wala moom ab yar moomu mu nawwirul janaani day leeral ab xol kama yuqarribu nit ki mu jegele ilal jinaani jamale nit ki ca àjjana wa yujibul madaxa day waral ak tagg la dal jiiraan yi ca ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo ya kama yubaidu comme ñi nga xam ne noonu lay sori le ani niiraan yi walif la nga xam ne mooy sawar kon nee na sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ay teggiin mooy li nga xam ne day leeral ab xol ay teggiin day leeral ab xol waaye day jegeel nit ki li nga xam ne mooy aljana day jegeel nit ki aljana di waral tàggu ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal waaye di di soril nit ki sawara kon lu lay jegeel àjjana faw mu soril la sawar te it ku ne xam na ne nit ki saa bu yaroo dëkk ak ay nit fu mu romb ñaan dañ koy defal fu mu romb dañ koy tàgg fu mu romb dañ koy naw ngir lan ngir yar ba nga xam ne moom lay jëfandikoo waaye ngir yar ba nga xam ne moo nekk moo nekk ca moom moo tax sëriñ bi ne fa xumtu ma gaawantu nag jug musri'an di aji gaaw dama jug bu gaaw ilal jawaab bi jëm ca tontu ña nga xam ne ñooy murid yooyee wa arte ji tamay yaakaar ar riba ngir ma sawaabi ànd ak yool sëriñ bi ne na bi nga xamee ne taalibe yi sàkku nañu loolu ci man dama jug ci bu gaaw ngir tontu leen ci sàkkuteef loolu nga xam ne moom lañ sàkku woon ci man waaye dama koo def ngir lan ngir def ko ngir di ci yaakaar ngërëm lu tukkee ci suñu borom waaye di ci yaakaar ab yool boo xam ne mooy tukkee ci suñu borom bi subhanahu wa taala kon dama koy def rek ngir yaakaar loolu waaye defuma ko ngir ngir leneen mu ne madd muunuhu li mu làmb moom téere bi nasrul wali yi mooy wesaw wali wa alxaaji yi mooy alxaaji kon waxoon naa ca bind bu njëkk ba ne téere bi ab wesar la woon woo xam ne ku ñuy wax alxaaji moom moo ko wesaroon di ca jàngale li nga xam ne mooy ay teggiin waaye sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee xam gi mu xam ne ay woy moo gën a mën a jeexital ci jeexital ci nit ki te it moom la nit ki gën a mën a gaaw a mokkal ci la ko taalibe yi sàkkuwaat ci moom ngir mu defal leen way woo xam ne dinañ ca wuti ay teggiin bi mu leen koy defal mu jël wesar woowee daal di koy woyaat waaye yokkaat ca lu baree baree bare kon mën nañoo jàpp ne téere bi moom cosaan la dëgg-dëgg mooy ku ñuy wax alxaaj yi moom moo ko moo taalifoon téere bi waaye sëriñ bi bi mu ñëwee moom daf koo way daal di ciy indiwaat yeneen bind yu bees tàq yoo xam ne bari na njariñ lool moo tax mu ne wa arta ji tamay yaakaar bii ci téere bii xadaa alxaaji fajuk aajo kon ab téere la boo xam ne sëriñ bi nee na maa ngi ci yaakaar fajuk aajo te sëriñ bi suñu boroom mën nañoo jàpp ne lépp loo xam ne yaakaar na ko wala lépp loo xam ne mébét na ko suñu boroom bi subhaanahu wa taala dana ko defal ngir cër boo xam ne am na ko ci digganteem ak yonente bi alayhi salaatu salaam waaye digganteem ak boroom kon téere bi loolu la làmboo mu ne li jamaa yi ngirub booleem maaxti saarin ànd ako gàttal jullama la ëpp ca la nga xam ne farraxahu teqale woon na ko almusannifuuna ñi nga xam ne ñooy ñooy taalif alxudama ñi nga xam ne ñooy way jiitu maanaam ñi fi jiitu woon te ne na téere bi dafa doon téere boo xam ne dafa dajale lépp loo xam ne ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon di taalif ci fànn gii mooy ci fànnu teggin ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci borom xam-xam yi di ci taalif la nga xam ne moom lañ doon taalif lépp ne na ci ay mu jëm ci wàllu teggin ne na téere bi dafa dajale lépp waaye daf koo dajale ba pande pare ànd ak gàttal maanaam dajalew ko mu gudd ba nga xam ne taalibe bi bu koy jàng daf ci yokkat wala yu demee noonu waaye daf koo dajale ba pare ànd ak gàttal ndax ku ne xam ne xam ne ne sëriñ bi da daan wax benn baat wala ñaari baat nga mën cee nga mën cee génne lu bëree bëree bëree bëri loolu nag li tax mu mën a nekk maanaam mooy xikma goo xam ne am na ko xikma boo xam ne am na ko te suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne wa man yuutal xikmata faqat utiya xayran xayran kasira képp koo xam ne jox nañ la xikma rek jox nañ la yiwu bëree bëri te sëriñ bi radiallahu anhu dafa amoon xikma bu baax a baax a baax ngir ne su waxaan benn wax rek daanaka mën nañ ci jariñoo lu bëree baree bëri ba nga xam ne taalibe yi murid yu mag a mag yi nga xam ne ñu ci bëree bëri ñi ci mëntoon a jàng sax ay tomb la liñ daan jàngale te loolu lépp xekk ma la doon wane waaye téere bi tamit sëriñ bi ne na lépp loo xam ne mooy lu lu mag ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ñi nga daan xam ne ñoo daan taalif li ñi fi jiitu woon te doon taalif ci fànn gi lépp loo xam ne moom lañ taalifoon tem gudd ba ba yokkatloo donga bi ngir mu mën koo jàng sëriñ bi nee na boole naa ko ci biir téere bi waaye ànd ak ko gàttal kon loolu li muy junj mooy ku ne war naa fexey am ko ngir jëfandikoo li nga xam ne moo ci ne sëriñ bi wax ne wa kullu ma xal la lépp loo xam ne néew na bi lictifaayi ànd ak ko doy xayrun moo gën minal kasiiri ci lu bari zilaana i waaye ànd ak ko coono sëriñ bi ne na lépp loo xam ne moo tuuti ànd ak doy moo gën lu yaatoo yaatu di sonal nit ki lépp loo xam ne moo tuuti ànd akuk doy nee na moo gën lu yaatoo yaatu lu baree bari ànd akuk coono loolu mën nañ ci dégg ne ne kon li nga xam ne mooy téere bi dafa nekk loo xam ne dafa tuuti ba pare ànd ak lépp loo xam ne moom la nit ci di soxlawoo ci wàllu teggin mu nekk ci biir waaye nag moo gënoon sëriñ bi taalifi ko ci anam woo xam ne day bari ba pare di sonal nit ki day bari ba pare di tax nit ki di yokk ci di ko jàng wala yu demee noonu ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga wax ne xayrul kalaami ma xalla wa dalla li gën ci wax mooy wax joo xam ne néew na ba pare tegtale wax du niiw tegtale kon sëriñ bi ay waxam ne daal niiw daal di tegtale kon loolu mën nañ koo jàppe ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy waxi waxi sëriñ bi radiyallahu anhu kon mën nañoo wàcc foofu suñu kàddu yemale foofu suñu bindu tey di tuub bu baax tey jéggulu ndax xam naa fi ñuy waxe xaw naa yéemate boroomi xam-xam rek a ci ne ñun ay ndonga ay taalibe rek lañ waaye képp koo xam ne dégg nga ci baat bu jaaduwut wala bu jaarul yoon ñi ngi la koy tuubal te di la ko jéggulu di wax ne in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu